Precedí la prensa de jërë ngeen jëf euh, mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ni baaxoo seetaan seen télévision Pikine TV ak mboolem bànqaas yi nga xamante ni ñoom ñoo ko war moo xam muy Facebook wala Twitter wala Instagram ñu ngi leen di jaajëfal di leen ndokkeel bu baax bu ngeen gisee sama ginnaaw ngeen xam ne ñu ngi nii ci marché syndicat bu Pikine marché syndicat bu Pikine nag xam ngeen ni euh, président Macky Sall jëloon na initiative keroog bi muy inauguré li nga xamante ni moom moo di stade Alassane Djigo euh, bi mu koy inauguré rek la waxoon ni day defar li nga xamante ni moom moo di marché syndicat marché moderne marché moderne nag la waxoon ni moom la koy defar projet bi nag génn na ndax dégg ngeen nga xamante ni euh, moom lañ fas yéenee ànd ak ki nga xamante ni moom moo di délégué euh, muy délégué bi nga xamante ni mooy Baye Laye Ndiaye di délégué marché syndicat bu Pikine yëkkati na ay kaddu ngeen ko teewlu léegi rek ci biir reporté ñu incha allah dinañ ànd ak yéen léegi rek ak ki nga xamante ni moom moo di Baye Laye Ndiaye ci li nga xamante ni moom moo di reportage bi nga xamante ni wala entretien bi nga xamante ni séq nañ ko ak moom lu mooy loolu tamit ñeneen ñi nga xamante ni euh, dañuy bàyyi xel li nga xamante ni moom moo di marché syndicat bu Pikine moo xam mu nekk ñi nga xam ne dañuy ñëw jënd si bagage moo xam ñi nga xamante ni euh, dañuy ñëw maanaam ngir jaay si ñoom ñëpp dinañ fas yéene ànd ak ñoom def ñoom ak benn waxtaan jëmale ko lépp rek ci li nga xamante ni moom moo di euh, marché syndicat bu Pikine ndax xam ngeen ni marché syndicat bu Pikine boore na bari na ay dëkk yoo xamante ni euh, tey fii indi seen bagage boo xoolee euh, camion yi bàyyi koo Guinée danañ ñëw fi nga xamante moom moo di Mali danañ ñëw moo xam sous région bi fépp foo xamante ni dafay jógee rek di fii ci marché syndicat pour leen ñu su ko defee sama cameraman danga may daal di topp rek ma daal di dugg euh, ci biir marché bi ñu door a xool mba xam lan moo xew ci biir marché bi ginnaaw bi nga xamante ni président de la da koy defar ay ca topp ma sama cameraman. Euh, ni ñu leen ko waxee woon mbokk yi ñu ngi ak euh, ki nga xamante yaakaar naa kenn du ko. Euh, maanaam kenn du ko xamal kenn ndax ñëpp xam nañ ko bi ci njëkk moom moo di délégué bu marché syndicat waaye xam ngeen ni moom mooy représentant Cheikhouna Cheikh Ousmane Bamba fii ci diwaanu Pikine ndax xam ngeen moom nga xamante ni moom mooy Baye Laye Ndiaye nekk délégué marché syndicat ndax ni ñu ko waxee rek xam ngeen ni marché syndicat euh, keroog bi président de la république Macky Sall doon inauguré li nga xamante ni moom moo di stade Alassane Djigo defoon na ay promesse promesse yooyu nag yaakaar naa mu mel ni euh, yëf yi génn na kon ñu ngi ak Baye dañ koy bàyyi rek bu nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan seen télévision Pikine TV su ko defee ñu séq ak moom ay waxtaan jëmale ko ci li nga xamante ni moom moo di marché syndicat ci defar gi nga xamante ni fas yéene dañ koo defar li nga xamante ni moom moo di marché syndicat euh, kon dañuy daal di jóg suñu kàddu bàyyi laay lañ koy tàllal rek ko defee ñu wax ñu euh, nga xamante ni moom la ñu nësër ci liggéey bu ne mel kon bàyyi laay ñu ngi lay nuyu waaw ñoo salaamaaleykum Albayla yayla. dafa mel ni ci biir kii bi dañoo ñëw seet seen ko ci la xew ci jamono rek waaw 2005 président de la république xeetu fure day wàcc fii loolu moo tax marché bi am dayoo marché sous-région la du marché Sénégal képp loolu moom la président xam ba ne bi marché fure la dañ ko war a defar mu ànd ak jamono. tourisme yi nga xam ne dañuy bi bitim réew bu ñëwee toujours ñu ñëw bëgg a visiter marché bi waaye nii ñu mel dëppoowul ak nga wax dëgg yàlla gan ñu war a di ko visiter. dégg naa ñu ne euh, dañ leen di yóbbu jam ñaajo fii léegi ñuy defar marché bi ndax yéen pare ngeen ci ànd dem ñam ñaago. loolu moom ci yow mii laa ko dégg déggaguma ko feneen ci yow laa déggee boobu wax ñun daal noo ngi waxtaan ci question yooyu ñu nu wax. dina ma ca tontu leen ca maa tontu waaye ñii liggéey sunu réunion ak ñoom amagut ba ñu wax ak ñun ci yooyu fànn waaw buñ ñu ci waxee rek ñoom xam nañ leen ci. tey marché bi yaatu na boo ko doon xayma ci ay place wala ci ay cantine ñaata place wala ñaata kantin moo fi ne. kantin yi bari na taabari détaillants yi bëri na parce que taabari détaillants yi dem na ba juróom-ñetti téeméeri taabal yi tegal na. bokkul ak njoogaan yi ne ci mbedd yi taabal yi laa wax yi demal na ba yegg ci junniy kanting ak juróom-ñaar téeméer waaw waaye loolu ah site bi ci boppam yaatu na buñ ko liggéey nañ ko war a liggéey parking débarquement bi moo gën a am solo ci marché bi parce que par guine débarquement bi auto yoy ma lay wax ñu jogi ci rosia bi fofu lañu wara wacce am yoonu ñu wara jaar jall te duñ jaar ci ben mbedd bo xamne lay jakarlo ak ivoirien yi waaw parce que lool rek ngi ci grawa solo euh, gis nañ ñu marché syndicat président dafa wax ni marché moderne la te marché moderne suñ ko waxee warna am li nga xamanteni mom modi sambour foire yoy ñep ndax loolu yeen tam programme ngeen ko seen biir liggéey non marché ko ko mëna a liggéey fi mu indi na am sambour de foire parce que sambour de foire day am fourneau yooyu dañ koy soxla. Euh, maanaam li nga xamante bu ñu tuddee marché syndicat rek xel yëpp dina dem ci maanaam li nga xamante ne mooy yenn bagages yi. Euh, gis nañ ni euh, marché bi léeg-léeg dafay xaw a déborder ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di liggéeykat yi nga xamante ni ñoom ñooy nekk ci marché bi ndax bu yàlla dogalee marché bi mel méngoog jamono comme ni ñu ko bëggee di ñeen ñi nga xam yéenay délégué yi di ngeen taxawu maanaam maanaam marché bi ba mu mel ni ñu ko bëggee. waaw organisation day am comité organisation am. comité section am ñoo xam ne dañuy saytu marché bi ci bépp fànn marché nag dafa baaxoo xat marché xat la baaxoo waaye lu nu man ci sunu kéemtalaay kàttan ànd koog élément yi maire yi def suñu comité section ànd koog bi ba ñu organiser ko ba teg ko ci yoon incha allah lan ngay dénk ñi nga xamante ni ñoom ñooy xëy euh, di ñëw daan si seen doole fii ñu ngi xëy di daan si seen doole daal dañu xam ne defar gi moom dañ nuy defaral ñun seen kàddu la ñu yor ñu defaral la nag ba mu baax ñu delloo la ko nga nekk fa sew dëkkin mel na mu war a mel loolu du dajale kenn ak kenn parce que ki bëgg ko fu mu fanaan ak ki bëgg ko wétali defe naa ne ubal lii du waaw. ñi nga xamante ne nag luwe dañoo fay am place ak ñii tey jii bu moo koy liggéey ah, uti na bailleur de fonds partenariat uti na ko nee na da war koo liggéey liggéey bi nag ci gafakaag réew mi lañ koy fayee rek mu ñu koy defalee liggéey yi ci ñëpp. modernisation bi yewul ci marché bi ci yenen marché yi ni mébétu état dafa bëgg bu ko moderniser marché syndicat day jall ci yenen marché yi moderniser lolu moy affaire bi waaw dañu bëgg bu liggéeyé fi dégg nga maam ñu jall ci yenen marché liggéey ko jall ci yeneen marché liggéey ko parce que marché yi fi tabaxoon tabax yi rap na mu ngi ko daanu ci kaw nit ñi ñu war ko défarat kon dal ku fi amone cantine bu paré da nga jotat sa cantine waaw lolu fofu lan tollu négociation parce que lolu la parce da wax mom waaw. loolu a président kon ñu sant la gërëm la. waaw jërëjëf ngi sant bu baax ah rajo bi nga xam ne mooy rajo Pikine télé Pikine bi yàlla na ko yàlla dafa muy télé yi gën a siiw ci àdduna gën cee barkeel barke Xaadimu Rasuul jërëjëf ñu ñëw di koy wàccee ñun ñu jaay di koy détaillé. lan ngay wax sa ah ñu góorgóorlu rek dafa galu nag doon benn waaw bañ xeex bañ a xuloo comme président moom moo jël décision bi nañ ko ñaan rek ñaan rek lañ am de waaw nañ ko ñaan mu may ñu délai bu gudd may ñu délai délai boo xam ne dinañ dinañ mën a jël suñuy matuwaay parce pot waaw suñuy bagage jël suñu na matuwaay te mu teg ñu fenn daal ñu fay daan doole ba li mu ne day defar mu mu pare ba pare te bu paree ku nekk mu delloo la sa place ndax dañuy liggéey te mu bañ cee teg charte yoo xam ne ñun duñ ko àtte waaw duñ ko àttan te saay xos lu maam lañ jërëjëf jërë ngeen jëf nañ ñu ko def bañ xëj fa ñu mën faa liggéey ñun syndicat bi ñu ñor ndax ci la daan suñu doole waaw man euh, fanweeri at juróom maa ngi fii syndicat waaw maa ngi syndicat di yëngu ci wàllu restaurant parce que man li may liggéey restaurant ci laa nekkoon ba bàyyi ma liggéey liggéeyu kër ci laa dellu siwaat ma nekk si restaurant yi ma ubbi sama bopp restaurant waaw boobu ba léegi maa ngi fi. waaw lan ñi nga xamante ni fi xëy di fi yëngoo. ah ñi fi xëy di fi yëngoo de moom xanaa ñu góorgóorlu rek ñu góorgóorlu rek di ñaan yàlla fu ñu jëm yàlla ñu gënal fii ñu jóge waaw. sant la gërëm la. waaw kay jërëjëf kontaan euh, fekk la tey ci marché syndicat. Euh, ndax yëgoon nga ni président nee dañuy defar marché syndical. waaw déglu naa ko rajo de déglu dégg naa ko rajo waaw. Ah. bi nga ko déggee euh, maanaam ban yëg-yëg euh, nga ci am. ah kontaan rek bu ñu bu ñu yóbbu ko nañ yóbbu rek fu fu de xam nga fii fii mu nekk dafa kër yi xam nga fi mu nekk nii boo fi aman tey boo dugg fi am problème. waaw ñun kay fu ñu yóbbu da yaatu rek. bu yaatoo affaire moom fu mu nekk rek client yi fekk ko fa. bu soobee yàlla bi dañ koy defar. waaw pendant fu juróom-ñeenti weer ndax juróom-ñeenti weer yooyu du métti ci yéen. ah ñun daal nan am fa nu toog rek. ba keroog muy pare. waaw bu ñu amee fa nu toog daal moom la métti ci ñun moom. waaw. ban xeetu marché ngeen bëgg ñu defaral leen ko. ah bu méngoog su ne li ñuy jaay rek. na méngoog li ñuy jaay rek. xam nga koy jaay ay mangoog ay màdd ay orange. boo ko defal ay cantine nga ciy dugal xam nga loolu arrangé ñu. waaw loolu moom arrangé wu jàpp ni ay table daal moo leen arrangé. wala comme ni ñu def rek ñu fàkkal la daggal la sa place. marché moderne le président wax. Ah, moderne ah yàlla baax na. méngoog jamono. ah waaw gis nañu lii nii méngoowul ak jamono. déedéet loolu de moom. loolu moom kon du ñu arrangé moom. ñun daal li ñu arrangé mooy fàkkal ñu ko yaatu rek. ngeen mel waaw lal suñu xotti saako toog tiim ko di wax. waa ñun daal loolu moo ñu gënal moom bu ma nee nekk. ci biir discours président euh, keroog bi muy inauguré stade bi newoon na sax da koy def marché moderne day am ay sàmm foire. waaw waaw loolu moom dégg naa ko moom dégg naa ko moom loolu de moom bu ma nee tam baax na ndax xam nga léeg-léeg euh, orange day yàqu ak mango yi wax dëgg yàlla day yàqu léeg-léeg lu bari sax. ndax waxtaan ngeen ak seen délégué. waa xam naa nag ci lañu jëm bu soobee yàlla. waaw dala bi moom bala ñoo kii dara dana waxtaan ak ba pare moom waaw bu soobee yàlla. jërëjëf jàmm Mbarka Diouf. ñu fekk la fii ci marché bi tey ban gis-gis ngeen am li président wax. ah li mu wax ñun ànd nañ ci ndax président kenn mënut a xëccoo ak moom waaye nañ ñu defaral suñu defaralee ñu bàyyi ñuy jaay ci kaw tali bi ñu defar ci biir bu ñu defaree ci biir ba pare ñun ñëpp ñu ànd dugg ci biir. ndax ñëpp xañ nañ ci kaw tali bi. ah ñëpp dañuy bu ñu tegee fii fii ci kaw tali bi fii ñu jaay ñu baare tali bale waaw ñu nekk ci biir génn fare côté bee ñun ñu fare côté bii. ñu defaral bi ci biir suñu paré ñu organiser ñu dugg ci biir marché bi. légui buntu kër yi nga xamanteni ñoo génnee ci kaw tali bi ñoom nan nga leen ah xana dañuy waxtaan ak ñoom rek ndax ñun ñëpp ay dëkkandoo lañu soom bu ñu jaaxee wala jaax la ñu ñëw ñun tam nonu kon dinañu ñu bàyyi ñu sutur lu yóbbu suñu njaboot. ngay yaay di raay di ci kaw pont bi di ñëw ndax samay njaboot rek mm-hmm. waaw kañ yaa ngi jaay ci marché da maa ngi fanweeri at syndicat syndicat ah aw ah, ma dañuy rek laay kii rek dañ maa may borom cantine bi moo ma may. maa ma nekk fii. ndax waxtaan ngeen ak ki nga xamante ni moom moo di délégué bi. délégué bi moom ñu waxtaanee moom itam lu mu wax rek ci la ñuy ànd ndax ñun suñu papa la suñu nijaay la waaw ñun ñëpp daal dañuy sudulu rek pour lu ñu yóbbu suñu kër moom daal nañ ñu rek ñun daal ñu koy dékk ay loxo di ñaan mu jàppale ñu te yàlla rek tax ndax campagne baa ngi ubbi xale yu góor yi liggéeyu ñu syndicat bi la yaakaar xale yu ndaw kenn liggéeyu ci syndicat rek la ñu yaakaar ñun syndicat la ñu yaakaar ñoo ngi koy dékk suñuy loxo di ko ñaan nañu bàyyi ci kaw tali bi ñu toog gérer ñu defar ci biir ñun ñëpp ñu organiser ñu dugg ci biir marché bi. fay for nañ ci bay ñu leen di jam ñaajo ba liggéey bi ndax ngeen ci ah ñun daal nañ ñu rek fu ñu liggéey ñun ñëpp daal ñun daal fu ñu suturloo suñu njaboot la bëgg waaw loolu daal la bëgg su leen ko ñun rek bëgg waaw ñu jàppale jigéen ñi jàppale góor ñi xale yu góor yi liggéey ñëpp liggéey lool daal la ñu day am chambre froide boo xamante ni day dugg ba ci biir marché bi seen bagage yi duñu yàqu ndax nga ci lu moom daal lu ñu mën a def te muy lu baax rek te ñu bàyyi ñu fi daal ànd nañ ci moom daal li bon moom mooy jëlee ñu fii te duñu teg fenn ndax sësuñu ci kenn daal ginnaaw yàlla nan ñu jàppale daal loolu daal laa bëgg man waaw nan ñu jàppale waaw Aminata laa tudd. Euh, tey nga ñëwoon ci marché Sandaga jënd fi bagage. waaw euh, ñu ni euh, marché dañ koy defar ndax yëgoon nga ko. déedéet maa ngi koy doog a dégg nii. waaw man maa ngi dëkk fii Pikine lakki naan 3. di ñëw fii di jënd bagage. ñëw su ma jëlee fii oto léegi police caare gi laay wàcc. maa la Jacques Siraat bi. nga wàcc for nañu ci wewu béy ñu ne dañuy yóbbu marché bi jam ñaajo ba kere ñu koy defar. ah ndax yow loolu dina métti ci yow. dina métti moom dina métti trop. waaw ndax mun ngaa xëy yóbbu say élèves école nga daw dugg fi marché bi waaye bu fekkete ne léegi yaa ngi dem ba jam ñaajo dina metti trop. mais mi ngi fi. waaw ah, mi fi waaye paas bi daa seet jam ñaajo 1000 francs boo jëndee bagage ot terrain bi du ko indi. il nga jël oto loolu day métti. mais mais mais bu ñu dee defar marché bi fan nit ñi mënuñu nekk fii ci marché foog ñu am fu mu leen yóbbu. waaw dëgg la loolu moom dëgg la il faut mu am. waaye waaye dina métti si ñu nga xam ne jegewu leen. waaw day métti waaw day métti ngay ñaan président de la république. ah ñaanal ko gudd fan ak wér. mu jàppale mbooloo jullit yi. ay njabootam lañu daal nañ ñu jàppale. waaw ndax ñun dañuy daan suñu doole rek di ut lu ñuy am lu ñu yóbbu suñu biir kër yi waa kay jërëjëf man Fatma Niang laa tudd. bu la fii ci marché bi euh, ndax yëgoon yàgg na maa dégg loolu parce que Baye Laye Ndiaye ñun ñoo ngi ci ginnaawam mooy suñu délégué marché yàgg nañoo dégg loolu waaye nag ba ma déggee tamit ñu ñëw ci moom dañoo indi woon plan ne dañ koy defaral mais bi ñu indee plan bi dañ koy defaral moom tamit tontu woon na leen ne leen plan ku koy defaral nit ki danga koy ci ne koy neex. li ñuy neex nag mooy dañoo waxoon ne marché bi dañu marché boo xamante ne ay camion dañ fiy nekk ay camion yoo xam ne day mat ay quatre-vingts camion wala ay trente wala ay quarante wala ay cinquante mënoo koo jël ne da nga koy étage ndax marché bi bagage bu tooy lay am loo foog rek ci dak marché yi ci Dakar syndicat moo ko fi ëppale ndax nag pays yëpp ñooy daje fii Côte d'Ivoire Mali Guinée Casamance Gambie ñëpp fii la ñuy daje syndicat mën nañ koo xeeb ci gis-gis mais ay millions yi millions mooy tëdd syndicat kon nag marché boo xam ne bu ñu war a fonk la bu ñu war a jàpp la ñun nag amuñu fu dul syndicat ndax bu ñu xëyee fi la ñuy xëy ndax bu fekkee ne ni sam njàng tey yeggale wala tey ci yóbbu la ci foo xamante ne da ngay am place say bu riche boo amul fi dul syndicat syndicat ngay dem sàcc ñu nag fenn ñu soxla wuñu alalu jaamur ñaane jiwuñu kenn ñoo ngi ci marché syndicat rek toog. est-ce que nekkul ni maanaam defar ko mooy fonk ci benn côté dina la doon fonk. mais am na ci noo xamante ne bu ñu ko defee buur toog la baadoo la jóg loolu moo tax ñun ñu ngi ci suñu derrière rek délégué de marché parce que lekkul dara bàyyi ñu waaw dundewul marché bi daa gàddu woon saagam ñëw liggéey si fii ba marché bi délégué fekk ko fi mu gëm loolu ci boppam téye ko loolu marché bi. tey for nañ ci wéeru bay ñu ne dañ leen ko. man moom fu ñu ko yóbbu rek yàlla na jig ña fay dem mais man bu ñu ko yóbbu woon jëm ñaajo du ma dem mënu maa xëyee Pikine di liggéey jee jëm ñaajo. pâtissiers yi te marché bi demeetul noonu ni mu war a demee parce que marché bu bëree wax rek en général yàqu-yàqu dafay am da xëy suba jënd benn siwo mango nekk ko suba ba ngoon di ci dàq 300 wala 400 kooku boo bëggee passe aller retour jam ñaajo bëgg a bàyyi dépasse kër day métti nanu yërëm nag baadoo lay te xam ne nag ñëpp nag bokkuñu nag mën-mën yàlla mi jox ñëpp dépasse c'est-à-dire kenn ma ñam si cin ku xool ci loolu rek da ngay góorgóorlu fas jom ah ni ñu ko war a liggéey maanaam buñ ko defee ay place yoo xamante ni kenn ku nekk da ngay mën a teg day eh, baax waaye buñ ko étagé marché bi du marché étage marché bu ay camions yu dugg te bagage bu tooy la. Euh, waaw mën na nekk lépp mën na nekk rek ndax moom nguur moom lu mu xëccoo lu dina ko gagné waaye nag ñu ngi jàpp ci nguuru yàlla rek te xam ne moo yor ñëpp muy kun fayu kon ñu ngi ci japp rek ci yalla wiru ci Seydina Mohamed moy ngeen dimbi def rek tok japp ci yalla waaw. Nenda fini tudd Madi Ba. waa fii Macky nee daf ñuy defaral syndicat bi man de suma du ko defar ndax ñun fi la sutrolo suturooloo fu mu ne boo jógee fi jëm ba jëm ñaajo bi nga fa toog suba ba ngoon doo gis sa ku la ne ndong si su waxee su waxee tamit xëy na day defar moitié fu muy fu muy kii defar ñu génn ñu defar bu foofu paree ñee ñee ñee tamit jóg mu defar waaye su waxee day daf ñuy jógloo yóbbu ñu jëm ñaajo loolu mooy seen torox seen torox mooy loolu daal. kon daal da ngeen ñu leen moo waaw daal ñun daal loolu moo ñu gënal ñu bàyyi ñu syndicat bi fii fii la ñu xam mu ngoog lu ma 30 ans 40 ans ñu ngi syndicat bi fii di door seen waar di door waar. ndax waxtaan ngeen ak euh, seen délégué ci loolu. ah waaw ñu ngi waxtaan ak ñoom ñu ngi waxtaan ak daal. tey bu loolu amul ngeen nan ngeen nar a def. ah loolu de xanaa sonn rek de dañuy sonn moom ndax boo dëkkee Pikine mën naa la dem ba jam ñaajo nga ne yaa ngi dem yaa ngi dem jaay mun naa am nga dem 1000 francs sax soo ba ngoon doo ko jaay ndax day fekk client yi di jënd par tuuti tuuti jege fii du mun a paas dem ba foofu. ñu ne ñu ngi jënd ah ñu ngi jënd bagage nañu dimbale rek gi di yàlla bi. ndax loolu dina doxal économie réew. ah waaw. ndax xam naa syndicat bi moom fii euh, syndicat bi moom lu muy par jour ah moom tamit moom bu ko xamul moom mairie bi moom xam na ko waaw. Ah, mi ngi dugal daal. bu baax sax bu baax mi ngi baax moom daal ñun daal suñu sago man de man de sama laajoon maa ngi tudd Marie Bangoura bu ma laajoon nañu bàyyi fii waaw ñun daal fii la ñun daal fii moo ñu doy waaw voilà jërë ngeen jëf kon mu ngi noonu loolu lañ leen jëlalee woon fi nga xamante ni moom moo di euh, marché syndicat bu pikin muy nekk ay euh, ñaxtu yoo xamante ni ñenn ci askan wi sax wax nañ ko waaye tamit ñenn tamit nañ li nga xamante moom moo di liggéey bi nga xamante son excellence président de la république Macky Sall euh, jël na ko ngir jagleel ko li nga xamante moom moo di euh, Pikine de Dakar waaye jagleel ko réew mi euh, muy Sénégal ndax marché syndicat bu nekkee marché boo xamante marché moderne lay doon yaakaar naa dina baax ci ñëpp ñoo xamante ñi fi yëngoo kon bu leen kon yéen ñi nga xamante ni yéen doon seetaan seen baax daal di jaajëfal bu baax a baax Youssou Seck mi nga xamante ni moo jàpp ci coordination bi waaye di jaajëfal bu baax euh, sama cameraman Khadim Diop maa ngi leen di jaajëfal jaa ngeen jëf